glory glory man united sama gars yi ziar naa leen ñu jàll suñu épisode 3 podcast wala def débrief suñu match ñun ak Brighton donc mu nekk euh, premier match de à l'extérieur donc deuxième match la saison pour Manchester United ñu gagné ko nag 3 buts à 2 donc mu nekk les trois premiers point de la saison mais nag détrompez-vous résultat bi ak euh, contenu match bi c'est diamétralement opposé parce que ci match bi Brighton méritait largement les trois points Manchester United bu amoon machine nul sax miracle la ci moom donc euh, équipe la boo xamante ni euh, dañ ko dominer donc dans tous les secteurs Brighton moo ñu dominer donc Brighton euh, war nañu toucher suñu montant ay cinq reprises ils sont les meilleures occasions du match donc mu nekk match boo xam ne dañ ko war a gaaw nag fàtte donc gaaw corriger yi nga xamante ni mooy erreur yi ci am jàll ci leneen parce que ce genre de match là bu la saison. mooy mun nañu carte suñu place ci relégable yi match yu nag jàng liñ ci am ñaar la benn bi ci match bi en général te yaakaar naa li ñu waxoon contre Crystal Palace rek la waxaat beneen bi nag mooy ci wàllum coaching bi te même chose tamit li ñu waxoon contre Crystal Palace la ñuy waxaat mu nekk ne ñun dañu jàpp ne responsable dañ ko jox entièrement coach bi donc bu ñëwee ci match bi en général donc day nekk match boo xamante ni li ñu waxoon rek la ñuy waxaat. muy benn équipe boo xam ne équipe bu paresseuse la parce que Manchester United équipe paresseuse équipe boo xam ne du daw donc il ne court pas assez donc équipe boo xamante ni jàpp nañ ne adversaire bi ñoo koy gën a daw te gis nañ ne football moom équipe bi dominé débat mooy équipe bi gën a daw sur le terrain comme ni ko Donny van de Beek waxee suñu jeu bi dafa lent parce que y a pas assez de mouvement porteur bi su yoree porteur bi su yoree bal bi du am assez de mouvement devant lui parce que la plupart des joueurs dañuy xaar ba jot équipe bi dañu paresseuse trop du ñu daw il faut pas les nécessaire te nga yor bal bi nga war nga ñàkk yor bal bi il faut tout le temps nga nekk en mouvement au cas bu kenn récupérer bal bi il puisse te trouver xam nga en ordre il puisse te trouver en mouvement jox la bal bi mais ça c'est un problème à Manchester joueur yi il joue arrêté donc il joue arrêté loolu mu nekk benn problème boo xamante ni yàgg nañ ko souligner te c'est un problème bi nga xamante ni c'est toujours pas résolu beneen bi mu nekk wàllum pressing bi suñu système de jeu dafa basé sur si pressing euh, surtout première ligne bi mais dañu gis ne équipe bi y a qu'un joueur qui va au pressing normalement muy Bruno Fernandes moo koy déclenche sax d'ailleurs souvent c'est lui qui déclenche le pressing et bu ko déclenché les joueurs ils ne suivent pas ñi nga xam ne ñooy suivre sax ils ne courent pas normalement dañuy daw rek pour daw alors que pressing dafa doon nekk benn mouvement d'ensemble équipe bi yëpp ñoo koy defandoor pour mu jaar yoon bu ko defee sa adversaire nga bloqué ko fépp du am fu mu paas bali mu obligé dégager ko en chandelle nga récupérer ko mais bu fekkee benn nit mooy daw wala ñaar ñeneen ñi dañuy xaar ba seen adversaire recevoir ballon bi jël information bi contrôler ko nga dogaay daw loolu perte de temps la parce que le temps que tu ngay yegg si moom xam na déjà xam na jël na information nécessaire yëpp day paas bal bi déplacé wu après yow voilà tu pour rien euh, donc boobu tamit pressing bi nekk un problème troisième nag problème bi nga xamante ni mooy problème bi gën a marquant ci match bi ni muy problème de repositionnement te loolu équipe bi yëpp la de A amul kenn ku ci repositionné wu normalement équipe bi yëpp la défense bi moom rawatina leen donc cas bi ci gën a flagrant ñu jël ko en exemple muy Wan-Bissaka te yàgg nañ ko wax ci groupe bi yàgg nañ ko wax ci groupe bi donc ñu ñuy suivre ci groupe bi yàgg nañ ko gis ñu koy souligner c'est un joueur bi nga xamante ni moom pour se repositionner. moom voilà quoi sans pression la koy def yow yàlla la fa devanté bi au lieu que nga daw à 200 à l'heure positionné wu que muy milieu terrain que muy défenseur loolu je pense du ñu lay jàngal instinct la yaa la fa devanté bi da ngay accélérer à 200 à l'heure repositionné wu bu ñu dégagé danger bi après looy def nga def ko mais yow yaa la fa devanté bi mais tu cours à 5 5 euh, à l'heure pour repositionner te boo ngeen xoolee loolu moo ñu coûté woon suñu demi-finale ñu ne Séville te tout au long de la saison bari na gën a flagrant prenez le temps ngeen seetaanal match bi ngeen xool repositionnement Bissaka yi moom il prend son temps pour repos alors que c'est moom moo war a daw couvrir deuxième poteau bi mais moom day jël temps am nank lay daw pour repositionner te loolu du moom kese back four bi yëpp la du back four bi yëpp sax équipe bi yëpp la keroog dama kontaan ci analyse u Rio Ferdinand bi bi muy wax ci bii ñu encaissé contre Crystal Palace parce que dañ doon gis ne avant Rio Ferdinand ak Garnaville dañ doon wax naan daf ñoo soxla benn défenseur central buy jouer aux côtés de Maguire mais Giggs dama daan wax toujours Giggs mooy def les analyses les plus réfléchies parce que moom il analyse en tant que coach parce que Giggs da doon wax souvent on pointe du doigt Lindelof mais du Lindelof kese parce que Lindelof même su defee ay erreurs individuelles il faut qu'on couvre derrière lui parce que défense noonu la mais à Manchester United dañuy gis ne su benn défenseur defee benn erreur individuelle rek ça se paye cash parce que y a pas la couverture derrière que muy Lindelof que muy Maguire que muy Shaw que muy Bissaka kenn du couvrir kenn ñoom voilà da ngay dem au charbon si tu xam nga action bi bu ñu la rëccee après voilà quoi caaxli boy na kenn du couvrir kenn te mu nekk un vrai problème te défense je pense noonu la war a fonctionner bu kenn defee erreur war na mën a am keneen ku ko couvrir derrière ñu gis ne loolu noonu ça se fait pas déjà Rio Ferdinand ba muy analyser suñu but ñu nekk Crystal Palace c'était comme ça surtout premier but bi premier but bi da ngay gis ne Lindelof def na erreur parce qu'il a pas bien pris Schlupp Schlupp romb def benn centre en retrait bi mu defee centre bi déjà avant muy centre bi mu rombee bi mu gañee duel bi moom ak Lindelof rek day gis ne xam nañ exactement ci ban surface la mën a la mën a la mën a yónnee bal bi Maguire au lieu que mu accélérer couvrir surface boobu noonu da doon trottiner Luke Shaw et c' est comme ça d' habitude défense bi yëpp noonu la ñuy footballé loolu moo tax on encaisse beaucoup de buts temps yi nii li ko waral on ne se repositionne pas très bien si match bi nekk en phase défensive nekk en bloc bas am 7 wala 8 joueurs wala six joueurs yu nekk en en en en bloc bas mais terewul Brighton dañu am facilité trouver les espaces créer ay occasions ndax lan on se repositionne pas très bien et c'est un problème tamit dama jàpp ne loolu manque de discipline kese la te coach bi moo leen ko mën a moo leen ko mën a moo moo moo moo mën a andi discipline boobu coach bi moo leen mën mettre la pression il faut mettre la pression aux joueurs te loolu daañu ci ñëwaat suñuy wax ci choix wu coach bi dañu gis ne dafa yoo xamante ni choix yoo xamante ni mettrewul benn yoon joueur pression. te loolu mu nekk un vrai problème te dañ ko war a corriger muy pressing bi muy repositionnement bi muy course yi loolu noonu loo xamante ni c'est la base coach bi daf ko war a defar rapidement pour ñu mën a avancer parce que bu ñu continuer di jouer nii c'est des erreurs yi nga xamante ni peut-être on peut s'en sortir face à des équipes euh, du deuxième moitié de tableau mais face aux équipes yi nga xamante ni ñooy équipe bu top 6 bi wala top bi ça paye ni ñoom dañ koy exploiter ça paye cash parce voilà yoo xamante ni dañuy xaar am benn faille bu ndaw il en profite et en plus c'est des équipes nga xamante ni c'est des yi nga xam ne c'est des grands tacticiens ñoo fa nekk donc du coup bu ñu gisee erreur yooyu ñoom il les exploite cash raison pour laquelle ñun dañuy yaakaar ci coach bi lors des prochains matchs mu essayer corriger erreur yooyu noonu rapidement sinon du baax si ñun beneen bi nag bu ñëwee ci coach bi. sànq ñi ngi wax ne daf ñu doon jox daf ñu jox ay excuse yoo xam ne excuse yu bidon la bi ci njëkk moo excuse yu saison bi boobu comme ni consultant français yi di waxee tëchal bu mu ñu sonal ak pré-saison ñun tamit dañ koy wax bu mu ñu sonal ak excuse yu saison parce que pré-saison bi pratiquement kenn amu ko te bu ñu xoolee genre équipe yu mel Liverpool ba ñuy fóol seeni match amical ñun ñoo ngi doon fubal suñuy match Ligue Europa ko fàtte. donc joué nañ ay match même si contexte yi bokkul mais joué nañ ay match te man mënuma nangu ñu ne équipe bi dafa fatigué actuellement loolu moom mënuma ko nangul coach bi bu ñu demoon ba décembre peut-être nga ne équipe bi dafa fatigué là on serait d'accord mais là mënoo noppale ko 5 mois ñu joué 2 mois de compétition même si joué nañ match yu bari mais dañoo joué match yu bari rek pare ñu may ñu une semaine wala deux semaines de repos ñu démarré waat donc rythme manque de boobu noonu waru ci mën a nekk joueurs noppale ko wuñ ay 1 mois mois. joueurs yi dañoo jógee compétition ñu mel une semaine ñun reposé wu commencé waat donc ñooñu dañu war a nekk en rythme loolu moom day nekk excuse boo xam ne mënuñu ko comprendre d'accord léegi bu ñëwaatee ci choix wu coach bi ci biir joueurs yeeg yooyu dañuy gis ne dafa créer ci équipe ay intouchable ba pare lay def ay choix yu parce que match bi jeex na par exemple ku mel ni Eric Bailly dañu gis ne dafa ñëwoon euh, Lindelof dafa def ay erreurs individuelles yu bari ñu encaissé 3 buts contre mu nekk ay buts yoo xam ne c'est des buts ñëw match de coupe bi. ñu nag Luton mu indi Eric Bailly Eric Bailly def un match correct mu ñëw ci match bii nii teg ko ci banc bi dugal ko en deuxième mi te dinañ ñëw sax ci choix boobu noonu ndax choix boo xamante ne bu ñu jaaxal la ci biir match bi mais bi mu ko dugalee bi match bi jeexee coach bi daf ñu bëgg a gëmloo ne Eric Bailly nekkagul en forme donc amagul 90 minutes et cetera et cetera dañ la ñuy fàttali rek nekk Eric Bailly jógeewul ci blessure Eric Bailly depuis pratiquement ay mois ngi nii depuis retour corona bi il est en donc daf ko teg ci banc bi kese mais Eric Bailly jugewul ci blessure donc loolu bu mu ñu ko jéem a tamit gëmloo gëmloo nañu Bailly il est pas en forme physique amagul temps de bu doy parce que Bailly ba mu wéreeg léegi yàgg na dafa ko teg ci banc bi parce que c'est pas un choix bi nga xam ne peut-être dañuy jàpp ne il compte pas sur lui te nag match bi wane woon na ne Bailly c'est un sérieux concurrent à Lindelof à Maguire parce que depuis assez longtemps mi ngi en forme physique mi ngi ci banc bi te mi ngi xaar chance am te keroog bi ñu ko mayee chance am contre doon def na benn prestation bu bu jaar yoon donc dañ doon jàpp ne kooku waroon na koo mën a démarrer loo pour mu prouver sa valeur. parce que koo xamante ne la défense bi par exemple bu baaxoon sax mun nañu wax waaw mais défense bi n'assure pas ay match a ngi nii du benn du ñaar du ñett depuis saison daaw dañ ko terminer en vric-vrac ak défense bi. commencé waat ko en vric-vrac ak défense bi donc du coup ñun gisoon nañ ne Bale lañ doon kenn ku pronostiqué woon ne. bayrul démarrer match bi ñëpp dañ doon xaar bayrul démarrer match bi mu def un choix bi nga xamante ni c' est un choix fort ndax dafa jël Lindelof installé waat ko en défense te gis nañ ne défense bi back four bi mu installé waat terewul on s' est pris deux yi nga xam ne c' est des buts nga xam ne c' était évitable d' accord léegi ñu ñëwaat ci yeneen choix yi dañuy jël cas mel ni cas wu Paul Pogba premier match avant premier match bi ñu njëkkee def suñu premier podcast jàppoon nañ ne Paul Pogba parce que joueur la boo xam ne entraîné wul et tout ça moom mu ñëw confirmer ko en conférence de presse parce que match bi jeexee deux matchs yëpp Pogba dafa def des performances médiocres moo tax journalistes yi ils ont pris le temps demander ko exactement indexé joueur bi index euh, indexé joueur bi indexé Paul Pogba question bi mu répondre leen réponse boo xamante ni ñun dañu jàpp ne yabaate weesuwul loolu parce que bu ne joueur bi dafa nekk en manque de rythme entraîné dafa amoon corona ñu mettre ko en loolu moo tax mu def performance yi mais au fur et à mesure muy joué dina ñëw loolu ça veut dire que ça envoie un message fort mooy banc bi yéen tant que Paul Pogba blessé wul dafay joué mooy statut d'intouchable boobu ñu doon wax sànq mooy tant que blessé wul dafay joué parce que mënoo yor ci banc bi de joueurs yi nga xamante ni ku ci mel ni Fred daaw mook Bruno Fernandes ñooy suñu meilleur milieu terrain ci saison bi loolu kenn sañu ko weddi ku mel ni Fred mu entraîné mu entraîné nekk en forme jouer match amical bi nga ni kooku da koy teg de côté indi koo xam ne entraîné wul ku mel ni Van de nga xamante ne entraîné na joué na match amical bi joué na avec la sélection hollandaise waxi nopp ku mel ni Macto nga xam ne entraîné na joué na match amical bi joué na avec la sélection écossaise waxi nopp nga envoyé foofu noonu foofu dañuy gis ne message bi ñuy envoyé mooy remplaçant yooyu noonu ce sont juste des message boobu la ñuy jàngatee foofu parce que dafa ñëw dugal joueur bi mu def des performances médiocres journaliste yi indexé joueur bi laaj ko lu tax nga dugal joueur bi mu ne leen joueur lu tax joueur bi def ay performances médiocres mu ne joueur bi entraîné wul il est pas en rythme nekkul en forme physique. bu koo xamante ne nekkul en forme physique nga jël ay concurrents bi nga xamante ne ils sont en bonne forme physique teg leen ci banc bi dugal ko loolu daf ñuy jaaxal beneen bi mooy les changements qu'il a opérés au cours du match ci njëkk changement wu Eric Bailly à un moment donné tu es ngay dugal ngay opérer benn changement défensif di jéem a garder sa score alors qu'on joue contre Brighton on joue pas benn équipe bu top 6 donc loolu dafa nekk benn philosophie boo xamante ni jaaxal nañu ci Ole benn ñaareel ba ku mel ni Donny van de Beek tu peux pas durant tout le match nga war a def des changements yoo xamante ni ñooy changer sa qualité milieu de terrain nga bàyyi ba 89e minute ki nga xamante ni jàpp nañ ne moom mooy apporter qualité boobu noonu te yaa ko waxal sa bopp day apporter benn qualité sa milieu terrain nga bàyyi ba quatre-vingt-neuvième minute doog koy dugal alors qu'il sort de de benn rentrée de jeu bu bu bu bu baax ndax dafa dugg contre Cristapal dugal ensuite il s'est créé créé foofu noonu ay ay créé foofu noonu mouvement match am contre Luton mu nekk match bu correct donc on ne comprend pas pourquoi mu tegaat ko ci banc ba quatre-vingt-neuvième donc mu nekk des choix yoo xamante ni yu ñu jaaxal la ba pare excuse yi muy joxe à la fin du match mu nekk excuse yoo xamante ni mënuñu ko comprendre donc ñun comme ni ko euh, Roy Keane waxee période lune de miel dafa jeex pour Ole c' est le moment c' est le moment mu jël ay décision fort parce que équipe bi bu fi créer ay intouchable du dox dafa war a mettre les joueurs au même pied d'égalité mu am benn concurrence pour seen parce que noo jàpp ay joueurs di leen génne ci effectif bi di leen dugal nu mu la neexee di leen di yaakaar ci ñoom bu cas bi critiqué nga dugal leen ñu en sortie de banc ñu indi le résultat mënul nekk. parce que joueur bi ñëpp ci bokk yem joueur dañu soxla temps de jeu pour prouver seen valeur benn joueur bu mel ni Fred wane na ko donc temps bi ñu ko doon teg banc bu duggee en sortie de banc il faisait rien mais bi mu enchaîné match yi wane na valeur am ku mel ni Macto bi mu enchaîné match yi wane na yi ñëpp ci bokk yem ku enchaîné wul ay match mënoo nekk au top. il faut enchaîner les matchs enchaîner minutes de jeu pour nekk au top te ñun dañu jàpp ne Ole mënul gestion d'effectif loolu moom dul c'est la première fois ñu koy wax te dañ koy yàgg wax mënul gestion d'effectif parce qu'il gère mal l'effectif il y a des joueurs dans l'effectif comme ku mel ni Anthony Martial ku mel ni Rashford ku mel ni Paul Pogba dañu gis ne ils ont un statut d'intouchable alors qu'ils ont des concurrents qui peuvent donner mieux que li ñuy joxe parce que nekkuñu ci buñ ci nekkee garaawul on est d'accord buñ ci nekkee ñoo mën teg la mais buñ nekkul da la ñuy génne nga dugal ñooñu parce que on n'a pas prolongé euh, jënduñu Igalo pour muy toog ci banc bi dañ ko jënd pour mu ñëw concurrencer Martial il faut lui donner du temps de jeu su su Martial nekkul mais dañuy gis ne équipe bi quel que soit alpha match bi nu mu munti demee que gars yi dox ñàkk dox le premier à sortir c'est Greenwood même bu ci nekkee mooy njëkk a génn. Rashford, il n'est pas bon, il peut jouer 90 minutes. Martial, il n'est pas bon, il peut jouer minutes. Paul Pogba, il n'est pas bon, il démarre les Il ne pas, il démarre les Alors que Yao Nyon, Bissaka, il ne va pas démarrer le match parce qu'il ne sait pas, parce qu'il ne sait Alors que Kenen def même chose, il titularise le match. Nous, on comprend plus rien. te défaite bii nii performance médiocre bi moom lañ koy jox parce que moo jël choix yooyu noonu moo adopté choix yooyu noonu ñun donc yi problème mu mercato bi ñu teg ñaari match yi sur le dos du mercato parce que on a yor nañ équipe boo xam ne war na mën a concurrencer war na mën a surclasser Brighton war na mën a surclasser Crystal Palace. peut-être bu ñu tase woon ay équipe bi top 4 wala top 6 ñu gis ne par exemple ku mel ni Chelsea dafa def recrutement bu fort ku mel ni Liverpool dafa améliorer équipe am si dafa améliorer ñooñu ñu gagné ñu ñu surclassé ñu ne waaw dañoo war a tamit améliorer suñu équipe mais dañoo tase équipe yoo xamante ne jàpp nañu sur le papier waru ñoo mën a sonal wala waru ñoo mën a dóor. donc ñooñu bu ñu dóoree te ñu gis ne qualité effective bi ak par rapport jeu bi mu produire c'est jamais dafa dafa dafa dafa déséquilibré donc du coup ñun dañuy jàpp ne coach bi moo desee moo desee maîtriser li muy def donc nag lii moom comme ni ko Roy Keane waxee ay signal yu foor la yu inquiétant yoo xamante ni war na gaaw daal di koy corriger daaw gérer vestiaire am normalement gaaw créer concurrence bu seen boobu parce que ça va pas pardonner s'il finit pas hors top 4 man comme ni ko Roy Keane waxee yaakaar naa ne dañ koy dàq te buñ ko dàqee aussi damay yaakaar ne lu jaar yoon la parce que yorul équipe boo xam ne war na mën a finir hors du top 6. d' accord ñeneen ñi recruter nañ moom recruter gul ok mun nañ ko nangul loolu mais war na mën a produire benn jeu bu gën a bu gën a baax li mu defandoor pour les deux pour les deux premiers matchs donc nag yaakaar nañ ci moom mu jël des décisions fortes pour les prochains matchs à venir ku ci mel ni Eric Bailly concurrent la boo xam ne yaakaar nañ mu am chance am ku ci mel ni Van de Beek yaakaar nañ mu am chance am ku ci mel ni Paul Pogba yaakaar nañ ne dina def un tour sur le banc ku ci mel ni Rashford Martial yaakaar nañ ci moom mu mettre leen plus de pression et cetera et cetera ñun daal ñu ngi xaar nag donc euh, comme que deux premières journées yi la. ñi ngi xaar journée yi di ñëw pour xool exactement yan changement lay opérer ak tamit yan décision lay jël par rapport ak euh, ñaari match yi nga xam ne moo fi jëkk am kon gars yi mi ngi noonu ba beneen yoon incha allah.